assalamu aleykum mbaɗin nal nalɓe nomakan doron upright media tv 2 alna bintada jawolem uh, ah, ɓiɗum naata kany um, ah, kittiyol fanan uh, ah, witness atamin kete ñum bob keta um, alleged rape case ɓiɗum ay kitio kittiyo men doro wala minti ko ya le fo october karo tili lulu 2022 sango kono niya hayma o ɓe um, kari saba ñatola

Um, nalan jama media be en shootele comme en bob kafu ñola man tati am um, ba sisse am um, bi ma laf ka diamu no because mbe kumbol alna diam man sa be men kan to nyaati je to nyaaman tarakeri wande dinin bula ay sai bi mol ni jiko na tale ñin kes ñanta bannale bi hana man bam fereng bare ñanta bubakar bellale nay sai to nyaaman tara ñin ko kono mbe diam la baroe mbaf la baroe atele mu korda tiyoti atele nyanta wulle ay diyamala moli e fo ko nyinto tonya man tara kering al mol jibe rek mol ni kuyaring lebe bokan nanja man laf ka diyam bari nda kono me nyam bije fon safo nim mafo at at keno la fon safo bari ko le bita kan nyamin wallahi mol man kontan ye diamu man sakundaye ye diamu man sakundaye nyin ka fitno la wulu banko kan ñin ka finnole wulu bankokal ñin se barola government cause nole famolo because of munekata fondinkewol le baro kiji o fondinkewol le ɓe finti kan e protest kan pour boubacar ɓe mantoro men kono aɓe koleya men kono aye bondi je so aldiyamu baroye afo baroye ko ndel fondinkewol ko a manke mbijan komin boubacar ɗon nakkuwele gamme fondinkewol le wulda ɓe mbatatale to ñamantara ñin kuwoñin kono ye ye wuli ye diyambo bare ye wuli ay diama le mole ye tonya fo ñin kuwo ñin kono biyo mool batata le mool tita kata kana kata kana lolu lolu mun dalile ke kadu koot ajoyne kadu ajoyna ye tonya fo tonya tije ye wonde wandedi niŋbula ay free mool batata le mool ta nola koten kata kana fo janni octobre mun dalila kan fo janni octobre ya fo mole mun dalila kan a ah! mun ete toña fo la laba ye toña fo mole mool batata le saŋ molta nono la kata kana to ñamantara ñin kuwo kono ala fo bi diam gam kunda le say mantara moma barombe barolama anala mansa kunda mol batatale ni kewol batatale te le baro kije ni e barobe siri mansa yala bi ala ni gambe ni kewol mol batatale pour baro yalon diam gam gambe ni kewol to yal mol batatale cho baro yolonje en samuno keno because on the peace left and no lamenting e can understand because Buakar mu mold the be mold dani la menna alna say na tan na suwol kono na duloñin sikan naadi alala mansa ba mansa Kalanko, me alan ko a entena atali da e ka understand may boubacar da me alan ko duniya kuwo be atale kake mbe mool danila menna pour ye muru suwo kono si na fo alasanyin kuwo nyin ban kaira kono nde o message le soro nse même fono moli ha mo kana violence create mal violence la bare mbe diam la man sakunda e. kuwol kata nyami ni man stop kije ase fen wulu nole me alanko ate gala banko e kairo ngo ala jibe rek kabre last week monday kabre mbundum taxi driver jalle alanko woli pakte man doku ha taxi driver jalle pakte man doku moo jelle parte man do ko keno because of nyin case ni so ni ajibe banko la tanya to la yurwato ha ah, be siri man ta do ko la case killing to nya fo case ni bang mol batatale ni ajibe wolon GNCP member bondom last week thursday iman do ko ya closely for how many hours wa mol lose to jelle la nafulu jelle lose asiyatale so yimɓe bankola ñatoto fewonde stop kan so man sakku nani en towlon najjeli je wuuli e toña foñi kuwoñinto mool batatale fonninkewol batatale no baroyo long ala fo baroy ko gamɓe fonninkewol ko nte leya kiije bari batatale sa lefto toñale sabati imamera toña woye sabati imamera kunu niyaje bob aya fo iko ako ate adino na sawo comme amalla fiye sena bu ni sa soro toñata kuwoñinto mm. am toña tije aman soto ama fo bi ama fo sam kunun debe bu baye kunun kunun kunun so wonande rajel ama fo bi ama fo sam leftam mol fone fake news bula ika kara kumo fo me yalan ko aman soto bubakar keta mo fo bi ama fo sam uta kam the implication wala ma nyanta bola jana nyaadile senabu mo mo halakili ngati abe halakil ma hal tule laf senabu manke mo kennati senam mo jow balati li koy faam le nte Seynabou Londé nte Seynabou naa Londé mbokk yi wax naa la ba tey rek yéen ànd ak ñun opérateur Média TV 2 tey ñu ngi fii fi nga xamante si nii mooy Banjul côté boobu keetam ñu xam ne ne tey la waaye pousse nañ li nga xamante si nii mooy fift li nga xamante si nii mooy octobre ñetti weer si kanam léegi nag euh, dinañ dugg waxtaan askan bi ñoo ñu wax ñi seen réaction li nga xamante si nii mooy si aj bi jaa jëf mbokki wana naa ba tey yéen a ñun Opera TV euh, soxna si ñu la nuyu. Ah, Ndanga mandinga kangole moy. Ndanga mandinga kangole moy. Laftaka ñinin kaaro la ke ñinin kaaro. Ñinin kaaro min be mbulu wala ñinti ko. Hadamadiŋol min be be bantala banko kan. Birin babu du fo South Africa. Bayrin temu civiliano le ti andu ma luwa bunda karang wala ye tinna ñiŋ ñininkaaroo mba mbadi la mola la biriŋ gambiya fo gambiya la banta la ñininkaaroo miŋ be wala bulu wo le mu nyinti ko yeloo miŋ ya lonko sena bumbai seenabumbayi ta senegali bankoo kaŋ ka sambana gambia gambiya gofomen ye yaajele wo yeloo ñiŋ fo wo yeloo ñanta kuwaali fayiti la bang pour que yeloñi examundi ndi buwakar keta la ñin problème wala karole fo yeloñi ñanta tala la ban fo ma ñana yeloñi tala katu yeloñi mbiri ba tala buwakar keta bob keta la loya lamin kamara akama e, ñi yelola la ta sedeya akwai yelo be tala wato minna ama kalamuta andu aman kibari ya fanan mimba a folae a ye pour a ye taa a y'a seeda ya an ani keta la famili molu wolu fana ko e man kibari mi nyanta tandila ko i nyanta dindi woni yelo tala senegal banko kan sayin ko be ɲinin karole ke kan ha fo wo yelo ɲi a qualify tale jojo lo wala pour ko wo yelo ta ka kiitiye tei wo yelo la karola dunia molim bani nyinikala katon iko state la loya banko la eh, loyali mantu babu kan wede wannan kamar ka kan fa sene ya iko banko la luwa bunda la loya iko sena bumbai ya yelo min sambana wo ya lo nyin itoli be tamandir kala wo ya la pour ka eh, eh, eh wo dundi buakar keta la nyin kiti kon sai mbali danila mbe nyinikaro la ha bayri ñinin karla wobe kuma koy ñino la alim ma koy alim ma koy lafta kalon kooku sànn kaddu nekk mun am si la wax naa la mbokk yi ba tey yéen a ànd ñeen euh, ñu ngi fii fi nga xamante ni mooy Banjul si côté li nga xamante nii mooy Boubou keete bi mën naa ne gars yi aj ko li nga xamante ni dangaa puus li nga xamante ni mooy bala 50 li nga xamante ni mooy octobre 2022 mën naa ne ñetti weer kanam loxo gaa ej mu nekk loo xam ne am solo xam naa ne tamit ba tey tamit dañuy continuer li nga xamante si nii euh, mooy euh, euh, bi su ko defee rek gaa indi seen xamante ni nii mooy seen réaction mbokk yi wax naa la mbétte ret ñu na ànde ñun Opera TV ñu ngi fii fi nga xamante si ni mooy Banjul su côté bu bëgg kayte bi gis ngeen dégg na ne Covid da nga aj li nga si ni mooy 50 li nga xamante si ni mooy octobre ñetti weer si kanam nag danaa waxtaan sa média mu wax li nga xamante si ni mooy jàngatam yaa boo ñu la nuyu baax jëm sama naa def bro xanaa am betteel rek ak xol bu naxari xol bu dok dañ soona jooji si nañ def seen liggéey di draquer si jàmbur doomi jàmbur two years plus pour lan ba kañ ñun dañoo dundali ba kañ Gambie ba kañ nañ doxal yoon nañ doxal yoon ñun tey dañ tas suñu yaakaar ñun foogoon nañ ne tey góor bi dina yaaga comme bu ñu def final ruling bi ak whatever ñu xam boobu fan la moo féetew su dee moo ko def nañ ko rule mu dem guilty ñu xam na xam féetam ñun ñu xam naka la ñoo demee yow kees kees boo xam ne two years plus ñu ngi ko drag di drag man musuma gis lii léegi dafa doy dañ soona yor si seen boppam dañ soona boobu si boppam dafa soona ah xam ne ñaata lañ def pen pour dem mile two ak yooyu noonu dafa métti nañ waxante dëgg ah Gambia di saafuñ lii de justice system bi dañu overla fail dañu overla fail dañ tas yaakaar. lu tax lu tax nga ko loolu. because suñu yaakaar dafa tas boobu keesam bii nii musutaa am bureau. bi ma su ma yee juree ba léegi ma bu maa gis façon kees bu mel ni xanaa yow la a bopp. bopp su ma broda la daf ma jàppale soo gisee ma rey suma bopp dama amoon natu bu ma yàlla teg boob jàppale ma gisuma ndey gisuma bàyyi waaye nag nañ waxante dëgg su ma bokkutee boob dara sax ah? su ma bokkutee boob dara sa boob su ma mbokki gambien la dañ ko war a jàppale. ah fii amul affaire yi mbokk naaj dafa affaire Gambia la ñëpp a jóg pour ci xeex justice système bi nañ ñu dimbale nañ ñu jàppale nekkut boobu kese rek a nekk mile two koo xam ne aate wuñ ko ay millions de nit ñu ngi mile two aate wuñ leen te dañ ni justice buñ ñu feen ñun moom lañ yaakaar justice système bi ñoom lañ yaakaar na ñu dimbale nañ ñu dimbale boobu dafa soona de. léegi nag léegi yéen loolu liggéeyam wala. géej bi dafa war a def jigéen bi. bro géej si dëgg léegi mën na boobu moo ko def yéen yéen ñu xam ñu gëm yàlla waaye loo xam ne yow amul teguwut si dëgg teguwut si yoon ah ñuy traqueuse bi rek ba kañ ah jooj bi na def liggéeyam liggéeyam daf ko war a def liggéeyam bi mooy kees yow suñ la xam nga ñu ne soo reyee nit wala da nga réeb is beelabul loolu jooj bi dafa war a def liggéeyam mu gaaw waaye jooj bi ñaata yees léegi dafu liggéeyam bi loolu ban façon jooj la ban façon liggéey la gars yi nekkuñu liggéey de nañ liggéey soo léegi mën naa ne li nga xamante ne mooy 5 octobre la la géej bi waxaat yéen léegi ban tànk ban tànk ngeen ngeen taxaw si loolu. 5 octobre bi moo moo tax suñu yaakaar teguñ ko fen ñoom xamoon nañ ne jooji si dañoo dem holidays dañoo dem liif lu tax ñoom aate wuñ boobu balaa ñoo dem liif dañ ko waroon a aate balaa ñoo dem liif nit ñi xam bi ko boobu su delluwaatee si kaso dafa mel léegi dafa tëdd three years teguñ ko fen benn rape case teguñ ko fen a a mënee provoque youth si loo xam ne du dëgg di yoon te youth si fay ànda boobu ñun dañ bëgg a boobu ñu aate ko si yoon nañ ko aate si yoon si dëgg luwaa bi mun a dëgg na dëgg nañ suñ gisee jëkkër rek amuñ problème waaye kees bu ñëw draag di draag di draag loolu moo ñu métti bro xanaa boobu rek a fi nekk ab doomi Gambien boo xam ne dafa def lu bon nañ ko aate nañ ko free free free mu free nañ ko aate mu free wala ñu aate ko ñu teg ko ñoo xam luñ bugg a def nañ nañ de na leer ñu daal dëkk bi lañ bugg a mu free wala ñu gilti ko war reefa waaye di ko ajoñ moom dafa doy is enough waa Seexa noo ko déggandóoroo mu ngi dégg di nga askan mi la wax li gars yi wax rek ñu ne daal na jooj bi def li nga si euh, mooy liggéeyam mu nekk daal lu am daal loo am solo wax naa la ñooy ànd leen fàtte si ni mooy code bi gars yi pousse nañ ko ba nga ne nii mooy 5 octobre léegi fans boobu nag euh, dañ nga xamante ne wax li bi ñu def seen liggéey ñu teg ko si yoon parce que nekkuñ di def seen liggéey si yoon yëfi naa feexa moo fa nekk dañu war a def liggéey bi si yoon doomi jaamur bi dafa soona ku tëdd fa two years mënuñ koo aate xanaa léegi war nañ koo mun a aate waa rek am lu ñu métti lool rawatina ñun ñu nga xam ne ñu ñoo jigéeni Gambia parce que soo leen xoolee lii dafa métti ñu ne kan moo ko teg jigéen moo ko teg suñ suñ suñ càmmeñ ku nga xamante ni doomi Gambia la tey lépp lu nga xamante ni lu lu tax ñi ñun doomi Gambia di génn tey ñu ne two years ñu bëri ñu ngi wax ne two years nit yi mosuñoo génn dëgg la mosuñoo génn soo gisee mosuñoo génn parce que tey soo ne réeb kees xamaguñ nu lu waa di tëddee mun nañoo téye ñoom ne réeb kees la bañ xam nu lu waa ñu toog two years ñu ne koot mu ñëw am ñu ne DNA test ñu ne xale bi dee na ñu loolu moo ñu métti tey ñu ñëw pour justice muy xale bi muy ku nga xam ne mooy suñu broda tey tax na ku nekk ragal jigéen ñi Gambie te doonte jigéen ñëpp bon nañ soo xoolee fii tey ñu fi ëppa ñu jigéen ñi ñoo fi ëppa ñu am lu ñu métti torop tey suma roxoñ tuuru li tax suma roxoñ tuuru mooy ñu nekk doomi Gambien invité ñu ngi xee berke dee moo njaay leen toog baal ñu depuis moo ndee bi suba leen fi nekk ba si soog ñu génne ñu ne ajo seen kees bi tey Wednesday ñu ne Tenacoulook ñu ñëwaat di semting Banjul la ñu bëri doxee Monday ba Westfield tey itam di semting gis nga ñu ngi ñuy taxaw bunti Mile Two dégale am nga raay pour taxaw fa soo gisee ñu ñëw fi rek am lu ñu naxari moo tax ñun ñooñ fi pour xee ñooñ fi pour wax dara lu nga xam ne lu leen la lu ñu naxari ñun loolu leen ñoo pour wax ñu ne am lu ñu métti si kan moo xam ne suñ broda la am na ñu tëdd Mile Two yaaga nañ fa musuñoo génne di jooy o duxee ngir lii mun nga naa muuf ñuy wax ñun dem du problème waa ndanga rek ñun dinañ dem di a koy fu leen ma bu leen wóore ñu dem ba taxaw ñun ñëpp dinañ wax nañ leen dem ñu jaama moo ñu fi su duxee du xuloo xale yi dañ nga na gën a ñëw waajal done waaw mi ngi noonu kon ñu de def seen waaye nag mën naa ne parents may indi ko mu nekk loo xam ne am solo waaye incha allah lépp loo xam ne dana réussir la te danañ ko jox ngeen ànd seeg Ousmane Ndaw ak ki nga xamante ne mooy seen Adam sa si kàddu gi seen mbokk seen xarit Ousmane Ndaw ni ajen tol mbaten kundin manyilla ko kuwo safuta fo bi ni yaji be bubala nyin case abantale ya understand bubala nyin case bantale bari ni yaja mamban kule ba duma wolon jamfati wolon wo jamfa ibe wo sidi kan buba le kamma ya understand but ni aji be fango eh, buuba buba accuse minna wolon rape case ni but they don't have any evidence evidence mansoto mi ye buba muta mile tunte malong because he told nyanta evidence ne sotle na buba muta but there's no evidence so buuba have to go home buba nyanta dala suwa kono le ni nyulie evidence soto wato wati na buba kamma but buba ba mile two over two years a young boy like a buba two years Bouba Ba mile two still. waaw mi ngi noonu askan baa ngi noonu yéen a koy gis Ndoro baa ngi noonu jox ñu ñaar eh yow loo xam ah? nga am man la laa mën man man dama bëgg gaa bàyyi Sénégal bu ñu bàyyi bopp. ñoom ñaari yëpp we need yee man loolu rek laa andi mu la fa Kayro la Kayro yi sabati jàng. yee Kayro yi sabati la fawal la. mais sister dama bëgg gaa eh, na. eh Sénégal ne. ah xam nga du problème yi seen if ñu defaat dara three weeks rek mayal du ñu bàyyi ko. waaw waaw baax na waaw nag gars yi bàyyi boobu keeta. ñoom yëpp nga lekk si kéeg bi moo tax. waaw baax na ah, kanaa kéeg bi da ah nga lekk si kéeg kan man su ma lekkee naa bàyyi foofu su ma su ma amee nit ku ma invité fi ba dem boobu sax su ma invité damaa dem ma cob kéeg am man la ne suma biir bi la foofu la moo dem. yee waaw man du ma ñibbi fi lay fanaan. soo uh, justice bi naka naka nga gisee liggéey ah jooj bi naka nga gisee liggéey jooj bi man jooj yi kay man xaw ma si dara yi no ba looyee seen libi nii xaw ma si dara waa ñibbi ma waaw mi ngi noonu non fii dafa gaa yaa ngi taxaw foofu. mu nekk mbokk yi wax naa ba tey ànd ñun Opera TV ñu ngi fii fi nga xamante si ni mooy bunti Mayel Tour fanci boobu ñu fi fi am na ki nga xamante si ni mooy sama benn naataango naxtaana moom Ousmane lay nuyu baax ba jaso waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax fay bu baax a baax di la ziar bu baax lay ziar waa ñi am jàmm bu baax waaw tey soo amoon loo mën a wax si kees bi lan lay doon waaw kees la bu nga xam ne yéeme na euh, kees la bu nga xam ne tamit euh, jaaxal nañu bëri kees la bu nga xam ne xëy na tamit xale yi Euh, seen yaakaar dafa tas ndax tey ñu bëri dañ yaakaaroon ne. Euh, ban si ban fànn. Euh, ci yaakaaroon nañ ne tey bu ñu ñëwee dinañ leen wax ne Bob day dem këram at least am biel ñoom ñëpp loolu lañ yaakaaroon boo déggee ci seen wax dañ defe ne woon daal tey bu ñu ñëwee dinañ ànd ak Bob ñibbi kon bu ñu gisee ne ajoon na nañ mbir mi loolu day tas seen yaakaar moo tax nag tey ñu fekk ñu fii ci Mile 2 ñëpp jaaxle waaye nag li ma ciy wax rek mooy ñu ànd ak dal waaw ah, ñu ànd ak dal ba kenn bañ cee gaañu benn kenn bañ cee ñàkk bakkanam te xam ne tamit euh, suñu yoonum réew euh, xëy na euh, dinañ gis xale yi seen taxawaay gis xale yi itam seen doxalin ba tax ñu soppi jiko xam ne mbir mi daal dañ ko war a àttee ci njaaxaanaay waaw. soo nag nag nga jiite liggéey li nga xamante mooy jooju ndax xale yu bëri dem bëgg naa ne jooju def liggéeyam lu lu loo ab dogal nga xam ne loolu loo ab dogal yàlla nga wax loolu. waaw xam nga da ngay dégg justice delay is justice da ngay dégg loolu ñu bari nag noonu lañ ko jàppee ñeneen ñi di wax ne euh, lu mel nii tamit du du neex a àtte day jël time waaw loolu yëpp tamit am na ci ba tax na man li ma ciy wax rek mooy euh, mbir la mu nga xam ne du mbir mu ñu war a yéexal ndax nag téye nit ki two years euh, mu nekk ci kaso bi te ba tey amaguloo evidence amagoo proof maanaam loo ko mën a jàppee day jot nag ah ñu jéem a def mbir mi ci gaaw-gaaw maanaam ci daar-daar bàyyi ki nga xam ne mooy bopp mu ñibbi këram suñ defee loolu defe naa ne xale yi ak seen coow li ñuy coow ak naqar gi ñu am ñoom dinañ ci mën a génn loolu nag defe naa ne euh, ñi nekk ci kaw comme ni ko xale yi waxee ñoom ñoo war a dugg ci mbir mi wax ak ñi nga xam ne ñooy atte hmm. waaw. gis ngeen gars pose nañ ko ba la nga xamante ci ni mooy 50 octobre. waaw mën naa ne ñetti weer si kanam. yow yow la nga la nga yaakaar. waaw loolu yëpp day tax xale yi di gën a euh, ñàkk yaakaar ndax nag euh, foogoon nañ ne comme ni ma ko waxee si njëlbeen tey jii la lépp di jeex wala tey la ñuy wax boobu mu dem delluwaat këram kon buñ ko puusaatee ci ñetti weer day tax xale yi gën a jooy ndax dañ naan boobu day nekkaat ci kaso bi ñetti weer ñu soo koy attee waaye nag foog naa ne bu fekkee ne looloo fi sës te looloo fi sës ñetti weer yooyu tamit nañ fexe ba ñetti weer yooyu buñ ñëwee kenn dootul ajonaat li nga xam ne mooy code bi waaw loolu daal dafa jaajëf dañ ñëw taxaw fi nga xamante ne mooy buntu Malitu pour gars yi firi li nga xamante ne mooy bopp mën naa ne presse baa ngi fi tamit di def seen liggéey mën naa ne parents tamit ngi fi di def seen liggéey waaye nag mën naa ne fans boobu li wax ñu daal ñu ne ñoom jàmm moo leen fi indi waaye ñoom yàq tax leen jóg lu di jàmm mu nekk loo xam ne am solo. loolu la gars yi way gëstu sa bopp. ma ne nañ bàyyi bopp bopp dafa doon nañ ko bàyyi mu ñibbi si mu ñibbi si këram mu dem toog seeti yaayam ak baayam moo gën bu ñu naan ñu koy faral nit ñi di amul jàmm nañ bàyyi bopp su ne dëkk na yëngatu ne dëkk bi na jaaso a daa ba suba ba am sax daa ba suba ba bi président lii lan la xanaa lii lii a rey wu dañ ko a rey ka ah nañ dimbali nit yi waa nañ indi jàmm na gaay ki nga xamante ni bopp la gaay woy lan firi nañ ko nañ ko bàyyi rek nañ sori si lii nañ ko bàyyi octobre dafa sori nañ ko. waaw mu ngi noonu. lu ma métti Gambia bi suñ dëkk bi ñu jaay ko tubaab bi sa moo gën parce que léegi si dëkkam nga bëggoon sa raay buñ loo ko wax fuñ toj police yi fuñ toj nañ ñu bàyyi. waaw mu ngi noonu. abo. abo justice yàlla kuwake because ni kuwa kada nyame ni aji ba ma easy dunia be be bitla mon la hajol be tiya la mon la dok bol be tiya be mo di best do ye just se be be kala ke na dara bob le ke mol yalo na dara bob ma ke bana mol yalo abo ye la dok ko because ni ji be ni man nice mo be be vindi kan hajol be tiya kan mo mo hajol be la ne so hani atanga mi ngi nonu askan bi daal meneen bi fippu askan bi meneen bi fippu mu nekk loo xam ne lu day waar la mën naa nañu sax pour ñu def seen liggéey sax dafa nekk li nga xamante ne nii mooy jafe-jafe la. waaw ji ngeen mbooloo bi takk na trop mën naa ne ñun ñëpp ñi nga xamante ne nii mooy fansi boobu la gars yi dañu ne taxaw fi nga xamante ne nii mooy buntu Maayel Tuula gars yi taxaw pour mu nekk loo xam daal lu am solo la. What are you taking? But please, I'll try inside the crowd, within the crowd. It's not safe for you to join. Please, I'll try, I'll try sideways. Yeah, yeah. Okay, I'll try inside the crowd. if we try to do that to them, it's going to be a problem. You understand? So do you think that you once you hit somebody, the person has the right to hit you back. You understand? But we are not hitting them. We are showing them we are being disciplined and like we are being polite. You understand? Do they but, even have any right to hit you? No, no, no. They don't have that right. That, what they are saying is like this is their corridor, mile two, right? That is fine. You understand? They can tell us to move a little bit. You understand? When they put you push to an extent that then you a door, you door indirectly, bro it's like torturing somebody indirectly. You are not showing people that I'm beating you, but like, young do you, feel, Do you feel that your rights have been violated as a journalist? Of course, bro. You are also a journalist. You, you know that your, your, your rights have been violated. All these journalist people here, everybody is complaining. What, some, what is their complaint about? Some some of them have been beaten, some of them have been pushed, some of some have been uh, some of them have been abused by their mouths or whatsoever. You understand? So they, they need to change this system. You understand? Because Numneka is not cool the courthouse bi la ñu njëkk a daaxee ñu ñëw fii tamit ñu ñu daxa dañu dóor booy xam nga ñun dañ respect gars hundred percent est-ce que daax bu war na ah est-ce que daax bu yoon la mu ngaa gis fu ñoo daaxee presse booy presse ñun ñoo dee woon dëkk bi luy xew aduna bi luy xew wante suñu demee ba violate loolu rek ñun duñ am dara lu ñoo woon ñu nga xam ne ñu ngi toog si biti you know move move so the commander came he was like move move and I don't think whether he was uh, Naka under that command or anything else I don't even understand and this guy was trying to push us we are shoving and the other guy came I don't know where who he, who he is and he was pushing me with force. I said, sir, you cannot use force on me. And he was like, fuck you, move. Why would he say that to me? If I pay back, he insulted me. One of them even said to hell. I'm One of them, yes. Yeah. I said I, I, showed him my card and he was like phone. to hell. Why would I said this that? is the press, sir. He said to, to hell. Seriously? Seriously. Some of them are, are being nice, but most of them are arrogant. Very arrogant, I would say. Very arrogant. Very arrogant. Because you cannot say to hell with the press. Arrogant. They to are hell. Ignorant. Binta Dabo Jao. Uh, upright media. Nga men field wala minti ko. Nte fe hani bi i malon journalist ol fanan na nyanto momenti. Nte fe ma wala long. Because ni e atara ya long. Bi hani birin somanda biri mol tara nyin koto. Nte journalist je mi ente sabang nyin court house. Somanda juno len nata je. because last time ba fokan nun koy ko late ne so yedante wala wala ne molte dunna bin dele kata mo ti fo birin tat mol dunta iko ye mol nene ne ko al fintina ngana al yedum in order so janni ngana dun nan ngadoje loring ay fenko birimbe loring bundana be selectin la aka start grts qtv Kerfatu. fatu ay named ay men long ibe kumandi kan ni wala adu janni be o start la ila ke baya fola nuga ko jam manta jibe la jumala media be kain ndani banko kan jan manta jibe la jumala bota jan jumala bota jan so ngana findi banda ngaje ka bo qtv adu tuanya tuanya ani mohammed lamin toyen taraje ibe insa bo men we na de taraje QTV wota yota mi reporter fula GRTS GRTS manna ya understand keri fat yol bule tam so ni media doli mam men fo tolon nsa ko kutama lañu online media yol be bula lori ya understand ngata ni la kebala ko il alla ni mi ngal yake it's not right nga adunte mbedun nal nga mbedun nal because ñu man de sawa ñang adu mu media ti ñam fara mu media ti wol ñam mbedun nal so nga push and pull ka meta ndena ta dun But police behavive for commenting journalists is very bad. Very postet bi a ah, demangum nañ fu mu nekk ni gaa am di wax nit yi pour ñu jógee fii ni ñu bàyyi fii ni yëpp gaa buga fii yëpp mu clair parce que soo seetaane des sociétés ba seet gaa ñu ne um, this is a threat for people to be hanging threat la si ñoom so um, lu gaay buga rek moo di na nit yi jógee fii ñu bàyyee leen bi ni yëpp fu mu nekk ni gis nañ ne nit yi tamit commencé nañ di move waaye gis nañ PIU yi tamit seen force set bi toppa nañ leen ñu ngi leen a toppa si gannaaw comme fu gars stop rek ñoom tam ñu taxaw di leen won ne seet na da gars yi dinañ muuf wala duñ muuf su ko defee any crazy move rek dañooy sànni tear gas gis nañ ne first set bi dem nañ a followed by ñaari nit ñooñu tam ñu ngi toppa ñooñu si gannaaw di rest à on stand so um, right now loolu. Um, nalɓe a jiibe kan doron sainten tim fele nyinti mail tout central prison oto jam dami yalon ko a la supportal jamal bi nata e benda jenne toy ko nata ka demonstrate le peacefully pour a min sera kam fa da faɗa no nyame katu ya le ko kiitoñing a kuntita ñame amanke kuti mi yalan ko a yetol niyo sewo oto sinanan jang e demonstrate peacefully ya fa nun ko imanna fitna la bari ŋajele a nyosa saban saban jama ɗum ta inin piyayi officialité ma sainten tim fongo yemen for wala min koy koy jam bebula yeta ye premise so jam bebula because it ya feel like is a threat to them nin ñu um, be sirin jang e be balandi njay man sombola jang andum e tolbe damen iman kuno to ise the only thing men ke wala nimol insista dron ye tiagas sa entendi ngajele ko force to wol fele nyindi itata e be bulari mol no ka foy ko alboje alboja second set o wol faran hayna nan ibe loring e eh, ibe ibe la kaji ɓe eni move mi yalan ko ñun ta janan rong ñun beti ya gasa aɗa ñun ɗon be ɓe no kan sa entendi be wolto luñ don wax nonu rek am modi esta yi niti yeb ñonañ fi si ma te am jamano ji nak am PIU dañ wax ne is a threat for them su nit yi gaaree fii nii taxaw um, bañ a move is a threat for them um, so fu mu nekk nii dañu wax ne nan ñëpp dem ñu disperse from this end because they don't want to see anybody around even the press it was a pull and push and pull between uh, um, us so right now dafa mel ni nit yi ñu ngi ne la di dem PIU seen forset ñu ngi leen toppa daanaka dafa mel ni léegi any crazy move rek gars yi dinañ leen tear gas forset bi dem na te second set bi tam ñu ngi ne la taxaw di di xaar moo fi xew tey ndax soo bàyyi xel gars yi dañ jóge fi nga xamante si nii mooy si aaj bi mhm. gars yi dox ba buntu Malick Thiaw gars yi taxaw légui nak sun baye xel parents yi ñëw nañu. jamono ñuy so gisee gis nga parents yi ñu ngee daw towards the people dafa melni ni nit yi fuñ leen wax ñu ñu fa dafa melni nit yi ñoom tam fële lañ dem taxaw baña mu gis na ne parents yi dañ leen jël na ñaari step ahead di dem towards them so fi gaay dañu def any slight move rek crazy move rek ñi dañ leen tiagas kon na na askan bi dalal mu nek lo xam la am solo ndax tu bind tamit so baye xel pere bi am ñu xamne dañu jël ñu xamne moy risque ndax pere so demé ci ci ay saar yi war dem fi nga xamante si moo si bi da nga war a dem si gannaaw parents su ko defee si gars yi sànni tee gaz da am benn jafe-jafe waaye tey si biir bi rek su parents yi sànni gaz rek boobaa yow yëpp rek ma nga am li nga xamante si mooy jafe-jafe kon jëna tamit gars yi gars yi da gën a solaal loolu daal bind am na solo waaye lan nga gis si biti buñ fi ñëwee nuñ doon mingul ak crowd bi di hmm. PIU ak crowd bi naka lañ doon jaasowee naka lañ doon move hmm. is it something loo xamante ne yow fees na sa but because soo gisee nit yi buggaa doon ñëw we were asking them lu wax rek moo di ñoom ñëwuñ fi pour na mm. dañ ñëw peacefully demonstrate dox ñëw taxaw fii nii wane ne seen liggéey fiil mm. gaa yi ne loolu moo leen fi isi mm. waaye gis nañ ne buggaay dooree ba jege bunta bi fii nii rek PIU ñu ngi leen doon wax jógee leen fi move leen ba si ñun presse sax gaa dem nañ ba du ñu duñu bëma waaw Binta wax nga la am solo ndax soo bàyyi xel mën naa ne PIU na na gaa yi dal na gaa yi ña xam ne ne bokk réew mi ndax mën naa ne PIU ay ay doomi réew mi leen te ñun tamit ay doomu réew mi leen understand nga te mën naa ne bi ak ñi mooy PA yooyu yëpp liggéey bi la koñ nañ gars yi yombal mooy a yuus a dàq mu a baax di bëri bu gars yi gars doole fi ne nii gis nga ne presse bi yëpp ñëw nañ gaada at one side because fu mu nekk nii um, they feel unsafe to be a part of this crowd because any moment from now gars yi mun nañoo sànni seen tear gas yi which is not um, safe so loolu moo tax jamono ji uh, dafa mel ni presse bi majority bi yëpp ëppa doole bi yëpp ñu ngi nii ta bi am na ñu nekk si crowd bi nag ñoo xamante ne ñu ngi risk nag seen life mm. because fu mu ñi mun nañoo tear gas at any time mm. xam nga jamono ji mën naa si gars sànni tear mm-hmm. gas yi sunu meñ ñi nag gars yi ne si ñoom ñooy sonn mm-hmm. waaw mu nekk loo xam dara am solo binta tamit ji nga justice justice bi nag na def liggéeyam ndax soo bàyyi xel ñu bëri wax neen euh, tey justice bi tey su defoon liggéeyam rek lu loi bi wax rek boobaa askan bi dañ koy dañ koy apprécier da da si ànd waaye soo gisee askan bi génn justice bi wax gudd leer mu nekk loo xam daal lu am solo la daal. because jamono ji da ngaa laajte ñu bëri sa gars ñu laa wax ne ne ok ñun weeda luñ bugg rek mooy na nañ dogal rek. bu dee dafa guilty ñu tëj ko we don't have a problem with that ñun ñëpp dañoo ñibbi suñ kër yi previous interviews yi foog naa yaa ngi ko doon déglu dafa mel ni nit yi luy seen concern mooy na gaay dogal nañ dogal affaire si nag mujjee so waaye nu gaay defee nii um, case bi tey wax ne ne um, dañ ko ajoynaat ba next three months can you imagine october 5th dañ ko ajaat ba october 5th ngelaw baa ngi bari fii di yóbbu sama kaala bi rek so am um, fu mu nekk nii loolu moo merloo ñu bëri. Hmm. ñu ne dañu war dogal nit ki xam fan la toll na dañ koo tëj na dañ koo free. waaw Binta am na solo doo xam ne askan bi na gars di subscribe di like vidéo yi di ko partagé ndax am na solo de. Hmm. Ah, am na gars di subscribe ndax subscribe bi am na solo. Hmm. di like li nga xamante ne mooy vidéo yi di ko partagé di leen di li nga xamante ne mooy Infos Live soo leen seetaan ba pare ngeen bës li nga xamante ne mooy seen baaraam fu mu nekk ngeen bës ko subscribe mooy lu xonq li loolu ngay bës nga subscribe waaw soo bëggee tamit mën nga bës li nga xamante ni mooy mooy ligg bi boobaa kon dee doon seetaan li nga xamante ni mooy appareil ndax appareil